képp ku am commentaire boo bëgg a def ci bépp série sénégalaise que ça soit mu nekk Mœurs Madior ak Dior Idole bépp série bu mu mën a doon wala nga gis loo xamante ni dafa am ci réew mi ñu war cee wax mën nga ko envoyé par vocal ci numéro bii di affiché numéro bi nag amul group képp ku am loo bëgg a wax da nga koy yónnee par vocal ñun incha allah buñ ci jotee dinañ ko jàllale parce que lu xew TV ñun ñëpp ñoo ko bokk. bu leen fàttee abonné wu di partage vidéo yi ngir liggéey bi gën a mën a yaatu. asalaamaaleykum wa maa leen nuyu baax leen yaar hmm, di bëgg wax si épisode neex na lool wax dëgg yàlla fi mu toll nii moom macha allah mais njoor nag moom am na problème moom moom <laughs> am na problème ndax fii ne nii moom moom. dafay wane mbëggeelam ci aanu ba pare itam kii damay faa nu tuddati moom itam comme d'habitude moom itam ba léegi ma ngay wane foofu moom itamit kooku it mooy mooy ma ngi koy wax mbëggeel waaw xam naa daal moom épisode 41 moo xam naa dana war a doy waar moom waaw gis nga kii di euh, hmm, damay bëgg a dee waaye yow si si sitaar yi gis nga ko moom itam yi nga mook astel fii ne nii mënut a wax astel lu gëm fii ne nii astel dafa tiit boo xamul fu muy taxaw laa lay xamal ni <clears throat> mais mënu koo gëm mënut a gëm li si li si li si saar li si saar di wax waaw mais mënoon na mënoon na concentré wu jéem koo déglu nag mais xam nga rek dafa tiit.